6h45 minutes, première édition de ce bloc d'information. Bonjour Babacar on va parler dans cette édition, entre autres, de fraude fiscale. Et le de francs CFA au géant minier chez Barnic Gold pour non-paiement des impôts sur les bénéfices. Une niveau international. Les procédures seront respectées, affirme le ministre des Mines, Oumar Sarr, euh, qui a procédé ce jeudi à la de son euh, hausse des prix de, des produits dans le marché, les prix donc du riche de l'huile, du ciment et du fer grimpent à Mbacké. Les consommateurs de la localité ont exprimé leur ras-le-bol devant le ministre de la Pêche. Le président de l'association des consommateurs dénonce l'absence de réglementation.

qui vous dit euh, bonjour, bienvenue, merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec le fisc et c'est la fraude fiscale de la société Barnick Gold qui nous intéresse. Une plainte est en cours au niveau euh, des instances internationales et les procédures seront respectées. C'est ce qu'a fait savoir en tout cas le ministre des Mines Oumar L'État du Sénégal réclame milliards de francs CFA aux géants miniers canadiens euh, qui auraient oublié de payer des impôts Mali après avoir revendu euh, ses parts dans les mines de Massawa à Le ministre Oumar a présidé euh, donc ce jeudi la revue annuelle conjointe de son ministère. Oumar avec euh, Denis Nous devons parfaire, euh, le, surveillance des activités de manière générale. Au, au, niveau donc euh, de ces surveillances là, il y a bien sûr le ministère de, de, des Finances euh, qui joue un rôle euh, important, euh, notamment au niveau de tout ce qui est déclaration douanière et, euh, et fiscalité. Euh, je pense que c'est autour de cette question-là, qui n'est pas une direction directement gérée euh, par le ministère, et qui, qui a euh, des problèmes. je pense que il y a une, une plainte qui est qui en cours au, au niveau des, des, instances internationales. Bien sûr, il y a, il y a la société qui conteste, hein, mais il y a des procédures qui sont, qui sont définies et qui, sont, qui seront respectées. à l'instant. Donc, euh, le ministre Oumar Sarr a pu retenir que cette euh, réclamation de l'État du Sénégal se fait dans un contexte où le monde en général et l'Afrique en particulier est confronté à des situations de criminalité financière euh, transfrontalière du fait donc de la fraude fiscale et d'autres moyens engendrant euh, des flux financiers illicites selon le Forum civil. Au Sénégal, la mobilisation des ressources domestiques constitue une participation très forte à travers le programme Yatal mis en œuvre par le ministère des Finances à travers la Direction générale des impôts et domaines. À cet effet, cette euh, somme réclamée à Barnick Gold par l'État du Sénégal pourrait euh, permettre, avec une gestion optimale et transparente de couvrir des euh, besoins vitaux et essentiels des Sénégalais, aussi les comités territoriaux euh, pour la, pour la justice fiscale mise en place par le Forum civil avec l'appui financier de Tax Justice Network Africa et Oxfam encouragent soutiennent l'État du Sénégal dans une option de recouvrir les 120 milliards de francs CFA réclamés à Barnick Gold, exige également euh, de Barnick Gold de se conformer à la loi en payant les sommes dues à l'État du Sénégal. Euh, selon ce communiqué, euh, le Forum civil invite le peuple sénégalais à se mobiliser euh, fortement pour euh, le recouvrement donc des 120 milliards spoliés. Pas un jour sans une manifestation des travailleurs qui réclament de meilleures conditions. C'est parce que Mayon s'est affaibli sans pouvoir juridique, sans effectif, sans logistique. L'administration du travail est en difficulté, alerte le syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail. Face à la presse, l'organe s'argit euh, de l'application du code du travail et des conventions n'est pas outillé. C'est grave. Mohamedou Fall est le chargé des revendications du syndicat. pour recueillis par Issa Niang. Aujourd'hui, il s'agissait de tenir informée l'opinion nationale et internationale sur les difficultés que rencontre de manière générale l'administration du travail. Parce que c'est une administration qui a longtemps été laissée en rade et ceci à tort. Et aujourd'hui, euh, le contexte nous donne raison parce que vous ne pouvez pas avoir un jour où il n'y ait pas d'actualité, qu'il y ait des travailleurs qui sortent dans la rue jusqu'à procéder à un trouble à l'ordre public euh, parce que tout simplement ils réclament de meilleures conditions de travail ce qui est normal parce que ce sont des garanties que leur confère le code du travail les décrets et arrêtés d'application mais également les conventions collectives alors malheureusement ce qu'ils réclament aujourd'hui n'est pas chose faisable puisque l'organe étatique qui devrait se charger de l'application des dispositions du code du travail en n'est pas assez outillé pour le faire en ce sens. Il manque de pouvoir juridique pour contraindre toutes les entreprises qui contreviennent à la loi à se conformer à justement ces, euh, les dispositions de loi. À cela également, il s'ajoute le fait qu'il y a un manque d'effectifs criards dans l'administration du travail du fait des nombreux départs parce que ces agents de l'administration-là qui, une fois formés dans l'une des écoles les plus prestigieuses du euh, par défaut de motivation, par défaut d'un traitement salarial à la hauteur de, la, de leur dignité et aussi de leur utilité, alors euh, préfèrent euh, partir dans d'autres horizons. Et aussi aujourd'hui, nous disons que ceci ne peut plus continuer. Il faut que l'État prenne ses responsabilités en dotant à cette administration de moyens juridiques pouvant permettre d'appliquer la loi comme il se doit, mais également de mettre en place une politique de ressources humaines au sein ministère du Travail devant de, doter à cette administration de moyens humains euh, et de moyens juridiques, de moyens également logistiques assez consistants pour mener à bien les missions qui leur incombent. Et puis, euh, donc, euh, dans le rétroviseur, retenez que le géant minier canadien épinglé, donc, c'est Barrick Gold au lieu de Barnick Gold. C'est sur cette fraude fiscale. Euh, poursuivons cette édition d'information. Des difficultés plombent le marché aux poissons de Touba. Les des contraintes liées au fonctionnement qui ont été évoquées devant le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime qui a effectué une visite d'Odyssée. C'est entre 2013 et 2014 que le marché aux poissons de Touba a commencé à fonctionner. L'infrastructure construite sur une très grande superficie est aujourd'hui sous-exploitée et n'est pas bien entretenue. L'état des magasins, des halls et le manque d'hygiène l'attestent. Le marché aux poissons de Touba peine à décoller. Des difficultés sont à l'origine. Le secrétaire général des marailleurs, Cheikh Mbakenya, cite quelques-unes. S'il y a la pluie, on ne peut pas travailler. à l'heure là, là où il le soleil, les ne marchent plus. La glace se descend. Parce que les femmes qui travaillent ici, qui viennent ici pour prendre nos marchandises, on les, donne ça par crédit. La taxe aussi, c'est aussi euh, trop, trop, euh, c'est à 3 000 francs. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a visité le marché pour s'enquérir des conditions de travail et du fonctionnement à l'UNDOI. Nouveauté, apparemment, il y a une chaîne de distribution de poissons qui est en train à l'insu aussi bien du marché central aux poissons, euh, à l'insu du maire, à l'insu des autorités administratives. J'ai déjà donné, demandé à, au DPM de mettre un terme à cela jusqu'à ce qu'on sache de quoi il, en, de quoi il retourne. Et le marailleur habituellement a besoin de camions pour travailler, donc c'est une doléance qui revient. Comment l'État peut les accompagner pour faciliter l'accès aux camions frigorifiques Parce que ce sont ces marailleurs qui permettent de prendre le poisson jusqu'au point Ce marché pourrait permettre de satisfaire la demande en poissons frais dans les régions environnantes, mais selon les acteurs, pour y parvenir, une amélioration de la gestion s'impose. Tout ici, Mbaké, Sud FM. Touti le président de l'association des consommateurs de Mbacké Ascosen, Moran Gueye, qui s'exprimait en marge de la visite du ministre de la Pêche, a dénoncé la hausse de certains produits dans le marché. Il s'agit entre autres du riz, de l'huile, mais surtout le ciment et le fer. Selon lui, il n'y a pas de réglementation. Moran Gueye, interrogé par Adama Ndiaye. C'est une situation très difficile les populations du département de Mbacké. Au niveau de l'Ascosen, nous avons nous avons rencontré les chefs religieux, mais il se les commerçants, ils, ils sont allés trop loin. Il par-ci, par-là. Il n'y au niveau des prix. que le ciment, autant coûter, on est avec la tonne de ciment, c'était à 60 000, 50 000, maintenant c'est à 72 000 vraiment euh, le fer qui était à 35 000, 36 000 et à 50 000, 49 000. Donc ça, c'est des choses qu'on vraiment que nous, avons, nous sommes en de déplorer, parce que d'abord, jusqu'à présent, nous avons interrogé, les autorités, mais c'est le stand-by. Maintenant, au lieu de diminuer, ils sont en d'augmenter. Maintenant, je crois que les gens sont en train de s'organiser au niveau de notre association, association pour vraiment prendre les devants et vraiment parler aux autorités, s'il le faut même au chef de l'État, parce que je crois que c'est un problème qui perdure. Ici, les gens ne comprennent pas ces problèmes-là. Ces problèmes, ils n'exécutent ne, pas les, les instructions du, du, du ministre ou bien de quelqu'un. Non, c'est des gens qui sont là, ils ne sont pas contrôlés, c'est des gens qui sont là, qui font ce qu'ils veulent. Le bureau du commerce, je crois qu'ils n'ont pas assez de moyens. Peut-être là où le bas blesse parce qu'il n'y a pas de sanctions. Et ces gens qui font ce qu'ils veulent, ils vendent comme ils veulent, mais je pense que c'est un problème. Et c'est les pauvres qui en compatissent parce que les riches, vous savez. À la Sénélec tente de calmer la colère des populations face aux nombreuses perturbations notées ces derniers temps. La société d'électricité apporte des précisions et parle de travaux niche donc euh, des projets d'amélioration de la qualité du service. et a mobilisé son état-major hier pour apporter des éclairages sur cette situation de récente coupure. Ignace Dey. comme une rengaine pour les populations en ce moment. La question de savoir à quand la fin des coupures à Ziguinchor, la réponse de la Sénélec est on ne peut plus claire. nous, leur demandons d'encore de, de, un peu. Nous pensons que d'ici fin euh, la situation de Ziguinchor va être, le projet sera bouclé. et on aura tout le bénéfice attendu de ces projets. Le délégué régional de la zone sud Sénélec, Lemou Diallo, qui faisait face à la presse en a profité pour décliner une série de projets mis en branle par la société d'électricité dans la partie sud du pays. Des projets dont l'exécution sur le terrain engendre des coupures. La Sénélec apporte d'ailleurs des précisions sur cette situation de coupure notée depuis quelque temps à Ziguinchor. Le délégué régional zone sud tente d'ailleurs de rassurer Lemou Diallo. Vraiment, tout, tout pour prendre en compte toutes les contraintes. Aujourd'hui, on a été contraint euh, par rapport à l'approche de l'hivernage, de faire certaines activités à part de course pour ne pas être de, de, dans l'hivernage. Donc c'est le, le, programme tout béton, c'est le, le, cas. Euh, la mise sous tension du réseau 630 000, c'est le cas. Ça va non seulement amener des équipements de dernière génération, mais ces équipements vont nous permettre d'avoir la souplesse de, de reprise des alimentations. Nous présentons euh, pour les désagréments qu'ils activité qui alimente depuis la centrale de Boutout, Ziguinchor et ses environs qui faisaient face à des coupures d'électricité depuis quelques jours. Des coupures qui avaient fini d'indisposer les populations du Sud. et à l'approche de l'hivernage, la Senelec dit prendre toutes les dispositions face aux intempéries pour épargner Ziguinchor des coupures. Pour l'hivernage, on, a un euh, programme pré Donc il y a là maintenant des équipements et des ouvrages. Et un, grand programme de délagage des arbres. Souvent, les agressions qu'on qu note, c'est à cause des fortes pluies et des orages. C'est les, les, arbres qui s'abattent sur nos lignes et autres. Donc avant l'hivernage, de la centrale de Boutou. Ziguinchor, Ignace Ndeye Sud Ignace Deye, le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement informe qu'il a fini de recevoir euh, le mardi 27 avril dernier la totalité des recensements que devraient lui faire parvenir les gouverneurs des 12 régions euh, concernées par la distribution de l'appui de l'État aux conducteurs du Fonds Force covid la base de ces recensements. Le ministère, à travers un communiqué, fait savoir le 28 avril au service compétent du Trésor public le chèque et les ordres de virement relatifs au euh, paiement donc de l'appui de l'État d'un montant de 450 millions de francs CFA à conducteurs de Jakarta selon euh, la répartition par euh, région. Sur l'international, le candidat vaccin r en phase 2 en essai clinique à Nanoro, nous sommes au Burkina Faso. Cette Ce candidat qui présente une efficacité de 77%, les résultats de cette étude du Centre de recherche de Nanuro euh, ont été euh, présentés ce 29 avril au président du FASU au cours d'une audience. L'équipe de recherche annonce le début de la troisième phase de ce test les prochains jours. Les explications du principal investigateur de l'étude vaccin r à sa sortie d'audience à le professeur Alidou euh, notre prochaine édition d'information, Maria. Merci à vous, Babacar Sam. Rendez-vous à 7h30 dans de ce bloc Sud FM. Il est 7 heures. di Sud Matin ginnaaw juróom-ñaari waxtu jotee salaamaaleykum Hadj Maodo Faye. aleykum salaam soxna loolu ñu di pay fraude fiscale la ñu fas yéene waxtaanee ci xibaar yi. akay fee ci bérébu liggéeyukaay bi nga xam ne moom la ñu duppee Barrick Gold wax nañu ne foofu la amee ba tamit eh, salaamaaleykum mbokk yi ba ñu leen nuyoo Omar Sarr di jëwriñ jooju ne loole ay koppar la yoo xam ne lim bi fi mu toll nii daañu ci dikk léegi lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ci ay milliards eh, lu yooyu war a daal di fay ñoom bérébu liggéeyukaay boobu daañu ci dikk léegi eh, daañu ci toftali tamit liggéeykat yi nga xam ne tam fi ñu toll nii daal bëgg nañu fi ñu toll nii seen liggéey gën a nekk loo xam ne lu na tax la gannaaw ba nga xamee ne am na lool la waroon a demee ci wàllu yoon dikk wu ni loolu daan ci dikk léegi euh, Issa ñaamoon nu jàngatal wàllu fànn boobule toftal ci tamit ñi nga xam ne ay jafe-jafe yu am ci marché bi fi ñu toll nii marché jën ba nekk fële ca Touba loolu daan ci dikk léegi ak tuuti say daan ci toftal incha allah yeneen i xibaar bu ñu taaxir loo mu daal di yaatal moom Hadj Maodo Faye. jërëjëf mbokk yi ci ànd ngeen ànd ak noonu béréb bi nga xam ne dafay doon liggéey ci wàllu miin yi waaye nag barik euh, ugol dañ ko duppee ñoom nag daal dafa mel ne am na plainte boo xam ne bi ngi ci seenu ndodd gannaaw ba ñu gisee ne daal itam sax loolu mën naa dem sax ba génn fa Sénégal euh, Omar Sarr jëwriñ ji ñu dénk wàllu fànn boobu nag ñoom dafa am loo xam ne lii dañ ko war a fay mu di wàllu jëm ci wàllu fiscalité bi waaye loolu toll na sax ci téeméer ak ñaar fukk ci ay milliards waaye nag fayuñu ko moo tax loole jub jib ca ñu déglu euh, Omar Sarr bon xam ngeen wax nunu nii nun war nu gën a xool nu nuy euh, suñu méthode yi nga xam ne méthode yu nuy surveiller yu nuy xool yu nuy gëstu suñu activité minière yi dañu am ay yeneen matukaay yu nuy jël fii ak euh, at bi di ñëw matu ñu jël pour gën a dëgëral gën a xam vraiment lan moo xew ci biir société yi ak lan euh, nu fexe bay mesurer vraiment lu lu am lu génn ak lu ñuy exploité foofu ci biir société yi bon wax ngeen euh, euh, yenn problème yi nag xam nga problème mu douane la ak problème mu Euh, euh, euh, fiscalité yooyu ministère des finances moo ko moo ko yore ñun ak ministère des finances nag ñoo bokk liggéey bi ñun suñu leen wax surveillance ñun du ñuy liggéey benn parti bi ministère des finances aussi liggéey beneen partie bi donc si problème yooyu problème fiscalité nu ñu am problème ak société boobu mu ngi nekk si tribunal ah parce que ñoom dem nañu bay saisir tribunal d'arbitrage bu Paris donc loolu euh, ñun daan dem joxe suñu xalaat ñoom neen d'accord nu si loolu ñu leen redressé ñun daan jox suñu xalaat ñun euh, état bi mooy ministère des finance ak ak daan daanu joxe suñu xalaat wax nii pour ñun loolu nu waroon fay ñoom neen d'accord nu pour loolu mais loolu si si mbirum liggéey bi la euh, la bokk donc duñuy xam ni rek que ñun en tout cas lu mën lu mën a def état bi lu mën a def pour gën a jàppale pour xaalis bu Euh, exploitation minière di di di indi Sénégal gën ci gis boppam loolu aussi moo mooy sunu liggéey moo tax euh, ministère de finances def liggéey boobu moo tax aussi lu ñu jàppale euh, ministère des finances pour vraiment exploitation minière yi jariñ réew mi. daanaka ci bérébu liggéeykaay yu bëree bëri daanaka mënoo toog benn bis rek te déggoo liggéeykat ya di manifester wane seenu naqar ndax li ko waral mooy lu bëree bëree bëri ñoom dañ ci am dañ ci am ak tumuranke sax yenn bérébu liggéeykaay itam noonee syndicat yi bii nekk ci inspect inspecteurs yi nga xam ñoo di contrôler xoolaat mbir yi ci wàllu liggéey bi ñoom daanaka sax itam lañ war a def itam mbir mi ci wàllu code bi jëm ci wàllu liggéey bi itam foofoot am na ay ay jafe-jafe daal itam ba daal mu nekk nag mbir moo xam ne mi kii xam ne moom la ñu ci wàllu syndicat bi nekk ci wàllu liggéey boo boobule waaye nag am ay jafe-jafe ci bérébu liggéeykaay yi am na waxtaan bu mu ci am ak sañaa ñu dégg syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail dañoo génnoon def conférence de presse loo xamante ni bii euh, baaxoo wuñ ko ñu ko gis lu ko waral parce que dañoo toll ci jamono boo xamante ni bii na nga seetaan télé wala déglu ay information te déggoo ay liggéeykat di ñaxtu ndax niñ leen di jëlee ci seen bërëb liggéeykaay dëppawul ak yoon alors loolu nag dem ba nga xamante ni bii mu indi ay difficultés yu ay jafe-jafe yu mag ndax tey jii gis nañ ci yenn entreprise yoo xamante ni bii condition de travail maanaam euh, anam bi ñuy liggéey liggéeykat yi dem na ba nga xamante ni bii ñàkk si sa bakkan lu yomb la wala nga am ci ay gaañu gaañu lu yomb la lu ko waral parce que ñàkk sàmmonteeg ak li nga xamante ni bii moom la yoon tëral léeg-léeg nag liggéeykat yi également wàcc ci mbedd bi wax ni seen salaire baaxul amuñu benn garantie maanaam état protégé wu loolu nag euh, bu xasee ba toll fii fekk ni rek bu ñu déglu woon inspection du travail wala administration du travail ci njëlbeen ga xëy na mën nañoo bañ a toll fu ñoo xamante dañuy def ay blocage ba carburant ñàkk ci réew alors loolu nag lañ ne administration du travail am na ci rôle bu rëy ndax moom mooy organe ndawul état bi nga xamante ni moom la état bi yebal ci entreprise yi ngir mu mën a saytu jafe-jafe yi nga xamante ni moo fa nekk ba pare indi ci mooy que boo xasee ba teg administration du travail wala inspection du travail ci réew danga nga ko war a dooleel dooleel ko ba képp koo xamante ni bii rek jàdd nga yoon mu mën laa tegaat ci yoon doole boobu nag lañu wax ni la ñu amul ndaxte yoon joxuñu doole boo xamante ni bii mën nañoo wañ loxo koo xamante ni bañ naa tënku ci li yoon santaane loolu nag buñ ci dooleel nit ni te ji limu inspecteurs et contrôleurs du travail ci administration doon na lim bu néew tey jii nag loolu nag yàgg nañ ko muñ dem nañ nag ba toll jamono boo xamante ni nag nee nañ nag suñu boolu muñu kaay fees na ba tax na daal faw ñu génn waxtaan ak nit ñi wax leen li xew ni bu ñu gisatul inspection du travail wala bu ñu gisatul njëriñam nañu xam ne du ci inspection du travail waaye ci ñi suñu njiit ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo jiitu ñoo doole lu inspection du travail ni moo na mu waree ay jafe-jafe yoo xam ne dafa am ca marché jën ba nekk fële ca Touba ba jaaykat yaag ña fay liggéey yépp dem ci kanamu jëw jëwriñ ji ñu dénk wàllu napp gi ak koom yi jóge ci wàllu géej gi wax ko li nga wax wax ñoom ñëpp ñu wax ko daal seen ay jafe-jafe ak ay tawat ndax foofu daanaka dara doxu fa tuuti sëy ci atum 2013 jàpp 2014 ci la marché aux poissons bu Touba tàmbalee fonctionné mu nekk infrastructure bu am solo waaye mu mel ni toppatoo gi moom moo des boo tegee sa bët ci li nga xam ni moom mooy magasin yi ak hall yi di nga nemmeeku lu ne mel ñàkk set gi tamit firndeel ko marché aux poissons bu Touba ay jafe-jafe rek la am ki nga xam ni moom mooy secrétaire général mareyeur yi di Cheikh Mbacke ñaar di ko wax ñeneen ñi nga xam ni ñoo fay liggéeyee ñoom nee nañu jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel tar na lool. ñu yëkkati kàddu yooyu nag dénk ko ki nga xam ni mooy ministre des pêches et de l'économie maritime Alioune Ndoye mi nga xam ni ñëwoon na nemmeeku marché au poisson bu Touba. li ci ëpp solo mën naa jàpp ni lu mel na ay chambre forte benn doxu ci loolu xam nga problème wax ma yeneen problème piste bi bi ñu ci problème ah mbaar fi nga xam ne parce que glace la ñuy yeb te naaj bi buy dem directement ci yi day day gën a teel a euh, seey Euh, ak yeneen financement bi jigéen ñi wax nañu wax financement yooyu yëpp baax na ma koy dégg acteur wax ko mu déggal ko sa bopp suñu wareef nag mooy jafe-jafe yooyu liñ ci mën ñu saafara ko ci li mu gën a gaawee loo xam ne dañ ko war a tegaat ci yoon bi day wàllu yoon la ñu teg ko ci yoon loo xam ne nag dañ plaidoyer la boo xam ne dañ war a porter pour ñoom pour secteur bi ñu jël plaidoyer porter ko. marché bi nag mu mënoon fexe ba région bu Diourbel ak li ko wër yépp du ñu am jafe-jafe jën loolu acteurs yi di wax ni lu war a mën a nekk la waaye faw lii di gestion bi ñu soppi ko tuuti say Mbàkke Sud FM Euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ki nga xam ne tam mooy mooy wàllu consommateur way jëfandiku yi euh, kii leen euh, jiite ca fële ca Mbàkke asko seen boobee Maram Guèye ne daal doon na yëkkati ay kàddu moom gannaaw ba nga xamee ni itam ci wetu jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu napp geeg yu demee noonu bi nga xam ne def na ko foofu daal nee na ñoom bokk na ci seen i mbir tam jaay bi ñuy jaay foofu askan wa lu baree bari dafa yokk ceeb beeg diwlin jéeg lu baree bari daal ciment beeg feer bi ba daal mbir mi doy na waar lool Marème Guèye waxtaan ci ak ñi nga xam ni ñoo nekk ci ASCO seen fii. ñu ngi doxal di réunir mais xam na ni prix yi am fintoon ni ñu koy jaayee. waxuma la d' abord ceeb beeg diw bi mais je pense que sucre le fer le ciment ni muy yokk fii jéggi na dayoo jéggi na dayoo ba nga xam ne fintoon di ñu bëri fintoon ni mënatuñ tabax. parce que ñi am rek ñooy tabax léegi parce que fi mu toll nii financement bi mi ngi doon jar demoon na ba nekk à soixante soixante deux mille soixante cinq mille mais léegi dem na ba soixante douze mille bon fer bi vous savez que c' était à trente six mille trente cinq mille ñu ko jaay ay quarante neuf mille comme ça xam nga loolu métti na kon je pense que fi mu toll nii ñi nga xam ne ñoo nekk ci département bi moom ñu ngi souffrir bu baax. interpellé bu nekk nag seet ay kilifa diine dem ci chef de service yi waxtaan ak ñoom mais dafa mel ni aussi dañ wax na ay prix bëri dañ ko homologué bu tuwa xam nga problème boobu tam dafay am non état bi war na jël ay mesures pour sanctionner ces gens là parce que d' abord trop c' est trop et ñii je crois que comme duñ wàññi dañuy gën di yokk te kenn waxu leen dara je pense que bu yàggee ñooy sonn ministère du commerce son représentant daan dem di ko rencontrer mais xalaat nañ ni daal fi mu toll nii euh, mënu ci lu bari daal parce que xam naa ni amuñu doole mais seetaan bi ëpp na xëy na nag lu bari fi mu toll ñu ngi koy dox ñu ngi dem di rencontre ak ñoom mais ñu ci ñoo xaw a gën a dëgër daal bëgguñu dellu ginnaaw te tant que sanction amut duñ dellu ginnaaw kooku kon di Morane Gueye euh, ngeen baal ñu Morane géey mooy ki nga xam ne moo toogal euh, Ascosen fële ca Mbàkke doon wax daal jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel foofule ci wàllu njëg yéeg yu demee noonu la ci diwaanu ci Gicoor euh, Senelec nag ñoom ñëw nañ daal ci wàllu courant bi xool nu ñu mën a fexe daal ba rek daal di dànk lépp loo xam ne aju na ci jafe yi nga xam ne moom la askan wa di jànkonteel foofule ndax itam dog-dog yu courant yi dafa tar lool lool lool Ignace Ndeye dog-dog courant yi ñu nemmeeku ci fan yi ñu génn fii ci diwaanu Ziguinchor jaaxaloon na askan bi ba tax na sax ñu ngi doon laaj kañ la coupure yi di jeex Senelec daal di indi tontu ci li ni mel. ñuy ñuy ñuy masawu coono population bi. parce que ñu ngi ci phase terminale bi. li ñu doon liggéey juin juin ba ñu ngi egsi léegi ci euh, juin deux ci mai deux mille vingt donc daanaka euh, d'ici trente jours le réseau sera totalement mis en service. et mu nekk de vieux souvenirs et que nit ñi a bénéficier des retombées maanaam euh, li ñu commencé di ko gis euh, durée coupure yi di néew reprise yi di gën gaaw réseau bi noonu lañ ko xalaatee noonu lañ ko tëggee délégué régional zone sud bu Senelec di Léemu Diallo moom i janoon taskatu xibaar yi euh, démb euh, jot na firndeel ay projet yi nga xamante ni moom la Senelec di def fii ci diwaanu Ziguinchor waaye nag projet yu ni mel jàpp nañu ni suñ koy taxawal dee am ay yenn ci dog-dog yu ñu nemmeeku ci wàllu courant bi Senelec di ci indi ay leeral naka noonu délégué régional zone sud di rassurer askan bi na ay rëq-rëq yu ñu yu ñu ñenn ñu bëri gis ci yenn quartier yi donc euh, mise en service li ñu doon euh, équipement yu bees yi ñu nekk di def en service moom moo wone ay défaillance ci bi ñu koy mettre en service donc loolu tax ñu am ay ay dog-dog démb amoon na ay ñeenti dog-dog yoo xamante ne nit ñi dañ cee taxaw équipe yi liggéey ci diggante trois heures ba 3 heures du matin Eh, dog-dog bu ci nekk amu ci benn boo xam ne paase na wax yu ñàkk nag ay antenne yoo xamante ne ñoom ñu gën a yàggale mais liggéey bi mooy demee noo xam ne bu défaut bi amee nit ñi dañuy ñëw am nañu ay appareils yuy détecté défaut mais am na ay tests yooyu def ba pare nga soog a mën a def euh, détection défaut bi. 1 mégawatt wàllu courant mooy li nga xamante ni euh, jamono yi moom mooy alimenté Ziguinchor bàyyeeko ci centrale bu Boutout Ziguinchor bi ñu jàpp ni ak yeneen diwaan yi ñu ngi doon jànkonteel jamono yëpp ñu génn ay dog-dog courant ba tax na askan bi meroon nañu loolu daal di jaaxle rawatina ci jamono tàngoor bi ginnaaw projet yi ñu fësal Senelec jàpp na ni tamit ci nawet bi ñuy dëgmal dina jël matuwaay yépp pour janook ak jafe-jafe yi nga xamante ni mun nañ ko nemmeekoo ci nawet lu muy faral di am ba tax na coupure yi di am Ziguinchor Ignace su Sud FM. Ignace Ndeye li aju itam ministre ñu denk wàllu infrastructure yi jumtukaay yeeg transport beeg jëm ci wàllu transport suuf seeg yu demee ñu dem ak dikk euh, ci wàllu jëri ji wax na daal ci benn communiqué ne daal itam euh, rek euh, daanaka jot na léegi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi nga xam ne ci la ñu nekk daal lépp loo xam ne aju na ci wàllu xayma gi doon xayma ak itam di recenser que bind ñi nga xamee ne rek ñoo nekk ci yenn diwaan yi ci gouverneur yi toll ñaar ci diwaan yi nga xamee ne ñoom la wàllu Jakarta état yi daal di yitteel uh, ba koppar yooyu itam war a mën a yéwén nag ngir ñu séddale leen ko gannaaw bu fi mbas mi nekkee ba léegi tam di ñeent eh, ñeenti téeméer ak juróom fukk ci ay million yu nu war a joxe ci julli tolloog ñaar fukki junni nit ak yu toftalu juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent ñu ne daal loolu nag léegi yóbbu nañ ko ci trésor beeg chèque bi ngir ñu war ko mën a séddale jakartamaan yi ay coow nag jógoon na ci ci kanamu njiit réew mi joxe nañ leen ñu ne jotaguñu booba léegi nag lu ko téewoon ne daal léegi fi mu toll ni nag mbiri yóbbu nañ ko ci gouverneur yi ci fukki diwaan yeeg ñaar yooyu la ngir ñu war leen a mën a séddale seen koppar yooyu le li aju tamit ci wàllu njàng mi ak itam ay jëf yin ci def itam ci njàng mi atum 2021 mi COSYDEP itam am càmbar gum ci doon amal itam gannaaw ba ñu ne def nañ ay jéego yu takku ci wàllu njàng mi waaye nag budget yi ñaare moo dul yegg fenn fii ci koppar yi war a mën a àgg ak itam yenn jàmbar yeeg yoon liggéey bi ay sëtu géey ba Sénégal dugal koppar gu ñu mën a xayma ci ci budget am jëmale ko ci lu ñu naan éducation nationale euh, jamono bi nga xamante ne nag ci àdduna bi yëpp ñoom lu toll ci 20 pour cent la ñu daal di dugal ci seen système éducatif mu mel ni nag Sénégal def na ay jéego yu bari jëm ci wàllu woowee waaye mu mel ni nag ba tey lu bëri des na. école boo xam ne amul ndox amul gànnuwaay euh, wóorul en terme de sécurité euh, évidemment que foofu xale mënu faa amee qualité. pàcc bu nekk bi nga xamante ne soxla na financement amul équité loolee waral lu bëri manqué fi lu ci mel ni jàngalekat yu doy ak it ay table ans Cheikh Mbow mooy directeur exécutif bu COSIDEP. kon nag bu ñu xamee ni boo amee benn école euh, si ñaari école amuñu ndox fi ñu toll nii boo jëlee fukki école ñeenti am am nañ ay problème mu gànnuwaay boo jëlee it euh, téeméeri école euh, genn wàll bi lu ëpp genn wàll bi amul sécurité maanaam amul wiir amul lépp loo xam ne aar jàngalekat kon loolu nag dafay nekk loo xam ni war nañoo mën a yëkkati yëngal ñu ba nga xam ni euh, dinañ mën a am budget bi fuñ ko fii ñu si mën a jagleel fànn. loolee waral nag Sénégal war a ut ay pexe ci naka la war a séddale koppar gi mu jagleel wàllum éducation ngir pàcc bu nekk mën ci am wàllam. tey boo xoolee li ñu tuddee budget investissement ak budget fonctionnement gis nga ni as tuut la ñuy jël di ko jagleel ci lépp loo xam ni wër na environnement li wër école bi. war nañoo calculer xalaataat ba indiwaat yeneen façon yoo xam ni. Euh, danañ ko mën a danañ ko mën a financer. lu mel ni taxes yi ay taxes mën na financer waat éducation loolu nañ ko. ah te yooyu dund nañ ko déjà ci aéroport bi euh, yenn produit de luxe yi war nañ cee mën a am loo xam ne pourcentage bi ñu jël na lii dañ koy dañ koy éducation. bu ñu ko xoolul dinañ continuer kese di yem ci li nga xam ne moom la leen won mooy système boo xam ni li muy financé mooy euh, juste le fonctionnement mais. côté investissement lépp lu jëm ci li ko wër ak gànnuwaay bi dafay am ay manquement am ay jafe-jafe. kon daal di nañ koy door dëkk yu bari nar ci àndandoo ngir jàngat jafe-jafe yi am ci wàllum njàng meek njàngale bi bu lépp yembee nag dana tax ñu gën a defaraat lépp lu jëm ci wàllum éducation nationale. Euh, kon nag soxna Maria foofu la ñu daal di taxawal. jërëjëf Hadj Maodo Faye ñu jox la dig daje incha allah juróom-ñetti waxtu ngir yeneen ci xibaar.